internationale. abonné ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay yu wér ci réew mi ak ci bitim réew. gannaaw bi nguur gi société civile bi commerçant yi ak ñi séq wàllum njënd ak njaay mi amalee ay waxtaan ngir indi ay saafara ci dund gu seer gi njiitu réew mi Macky Sall daa jël dogal wàññi njëgu yenn ci ay produits yi ñuy gën a jëfandikoo. ana lu indi jafe-jafe yi ba njëg yi yokku wàññi bi ndax dina am ay njeexital ci gafakaay boroom kër yi ak koomuk réew mi ana ban doxalin la nguur gi war a jël ngir gën a mën a saafara jafe-jafe yi sénégalais yi ci jamono joo xam ne sikkima lakkandoo ci àdduna wërngal képp économiste bu mag bii di professeur Meissa Babou indi na ci ay leeral. monsieur Babou ñu ngi lay ne. maa ngi leen di fay <clears throat> di nuyu seen mbokku. internet yi leen di seetaan ak leen déglu ah. di wax ne <clears throat> waxtaan bi xëy na ci instant bi mën na am solo ndax euh, jamono mm-hmm. moo xaw a yëngatu ci loo xam ne nii depuis mille neuf cent vingt neuf mosu fee am mm-hmm. ndax daanañ am benn crise ñu ne pétrole bi de jóg na loolu di benn mhm. dana laal fii laal fee nag mais du tee ñu xam ne ci loolu rek la daanañu am problème sécheresse ñu ne ah taw bi de moo tax xëy na kon feeg déwén su taw amaatee yëf yi changé mhm. mais lii ñu dugg moom dafa mel ni euh, àddina bi yëpp ci ruq yëpp nag mhm. du benn produit du ñaar maanaam kullu produit te loolu moo indi problème yi noonu la euh, tamaate ji yokk poobar sax dafa yokk ba ci tàngal mant pour wax la musuñ egg foofu mhm. wax dëgg yàlla daanañ am problème mu ah benn cher na mais téeméeri produit yëpp àndandoo jógandoo ba ci dugub ci Sénégal ñu naan mi ngi jar six cent ak sept cent ñu ne pot bisaab mi ngi dem deux mille cinq am na lu xew lu xew nag jigul kenn mhm. te bàyyiwul fenn kon loolu waxtaan ci <clears throat> dana eh, yee eh, suñu mbokk yëpp ci kem kattan. Mhm. liñ ci xam. boo ñëwalaatee ci xew-xew boobu kon ana lan moo waral euh, comme ni ko noonu yooyu njëg yëpp ñu gis mu mu yokku subitement. waa xam nga yàlla mooy maye. dafa may Amérique États-Unis daanaka lépp a fa. Mhm. la ñuy jéggaani bariwul tey ñooñu dàq bay bañ nañ ko ba bay esclavage xawma la ñuy wax ba amee Mhm. jàpp jaam jàppuñ ñu woon pour ñu doon ay mbindaan dañ ñoo jàppoon pour ñu bay hmm. loolu képp a taxul ñu jël si mais doon pour dóor ñu <laughs> doon pour raxasi bool pour wax la ñoom dañoo teel a jóg xam fi ñuy jaar yàlla def weneen wàll wa muy union euh, lu ñu tudde tey Russie jàpp Ukraine soo ñëwee ba côté Inde ak i Pakistan yàlla da leen may may leen ci mbay may leen ci ci ndox wante seen suuf lépp lu àddina soxla ci xeetu weñ ak leneen lu dul weñ sax li ñuy wax charbon mhm. fa la fekk baax yàlla def nag foofa toj te ñoom àddina bi soo ko daggatee ñeenti pàcc mhm. benn kaar bi li àddina dundee foofu lay jóge jógewul Amérique jógewul Europe foofa lay jóge Ukraine Union soviétique yàlla leen may mm-hmm. ba tax na tey suñ ne ciment dafa cher du rek njëgu pétrole bu jóg de liy dem ci ciment te di ko ñuulal charbon la ay xeer la xeeru daa mel ni xeeru raay waaye ne xeer ñu kukk Pologne lay jóge tey batiment su chéré weñ gi Ukraine lay jóge mburu mi ñu lekk su jógul Union soviétique maïs bi Ukraine mhm. lay jóge ceeb bi ñuy lekk fa lay jóge foofa su tojee àddina moo toj mhm. fenn rek la yàlla xaw a nëbbu ay yëfam muy Europe amuñu dara lu dul am mbay akuk càmm hmm. mais ñëw yoruñ lu ñuy jaay du gaz du pétrole ñoom dañoo ndóol moo tax ñoom ñoo ñu gën a sonn Afrique nag yàlla may nañu mais amuñu fullay defar ko ne tey suñ ko defaroon Afrique lu Ukraine man ci àddina Afrique mën na ko hmm. am nañ xeetu weñ bu yàlla bind génnu fi xeetu mbay muy coton di cacao di gerte am nañ àll bi am nañ suuf bi te xarañ nañ même su tawul comme réew yu mel ni Sénégal xarañ nañ pour bay mhm. ba nga xam ne kon li indi lii mooy guerre bi guerre ba am na dëkk dëkk ba tëju na su tëjoo te kaar ba ñuy lekk ci àddina fa lay jóge mu mel ne fi ne ñëppay daw di xëccoo am lu ñuy xëccoo nag faaw mu cher. Mm-hmm. kon benn problème moom moo moo fi am mooy guerre nañ ko arrêté àddina bi dellu fam mu de fa nekkoon du gaaw nag mais feet guerre bi mi ngi taxaw. Mm-hmm. njort naa ne àddina bi day gën a sonn européens yi ci duggoon bëgg nañ cee génn mu tëleen ndax ñëpp fatigué. dëgg la <laughs> ñëpp nañ ci contexte boobu la Sénégal jëlee dogal récemment njiitu réew mi ne dañuy wàññi li nga xam ne moom mooy njëgu denrée yi ba fixé ay prix wante it njëgu loyer bi mhm. euh, d' abord balaa ñëw ci peut-être effectivité beeg yooyu naka nga gisee mesure boobu. dama jàpp ne ni <clears throat> àddina bé taxawee ni la Sénégal taxawee maanaam subvention mhm. réew mu ne. ak na nga toll ak la nga man ak la nga xam ne dangaa jàpp ne sa askan li mooy farata hmm. tey soo demee France coow la du ceeb du diw coowul France la ci ëpp essence bi la ndax dañoo bëri oto hmm. xam nga dëkk yoo xam ne quarante millions de voiture te distance yi dañoo sore ñun nag xëy na egguñu foofu ci problème ñun suñ problème dund la lekk Mm. te ñeet yàlla may na leen xëy na bay na luñ dundee mu gën a sedd ci ñoom ba nga xam ne jaadu na gouvernement bi ni mu taxawee mu taxaw ma koy ma leen di féliciter d'abord mais su ma leen féliciter ba pare mm-hmm. observation bi ci topp mooy daanaka liñ man dafa amul solo ndax juróomi dërëm amul solo la koy màndargaal nag du gouvernement képp moo tële mhm. ndax waxtaan bi dañ ko seq gouvernement dafa toog commerçant yi toog ñëpp di ponkal waaw ponkal yu tey noonu suñ tasee réunion ñu ne ku ne loo man ku ne ne man de lii laa man kenn man la man ñu dajale li man muy juróom kon y a des su ko commerçant yi mënoon ñaar fukk la ñuy wàññi. ndax amul lan luy jar trois cent jëm téeméer nga ci laal juróomi dërëm kon du gouvernement bi rek moo tële gouvernement bi dafa tële ci ne yokk leen juróom def ko ñaar fukk ma jox leen amu ko. ok kon bañu ko ko da koo bañu koo munut budget bi attanu ko. ok ok subvention wax de te du benn produit su doon benn mu xaru ne wàññi leen ci cent. Mhm. su doon benn produit la. bu dee xaru la wàññi na cent franc ba joxe mais juróom benn produit fukki produit donc koo mënul topp benn bu ne nga def ci ay milliards mënul nekk dañu waxante dëgg hmm. ñaareel ba commerçant yi réunion réunion woo nee nañ luñ njëgg du ñoom ci biti réew la te muy dëgg bateau yu sax lañ doon transporter nañ ko yokk yooyu su tasee hmm. commerçant bi ne la man munuma ah ndax man fi mu ne nii nii nii lii may jaay nii nii nii nii nii amu ci dara kon soo ma wàññi danga may sonn xëy na mën naa ñaar dërëm gouvernement bi ne kon ah man it de ñett dërëm laa mën ci subvention ñu dajale muy juróom kon wax la ne malgré bëgg-bëgg bi hmm. muy engagement gouvernement bi di engagement acteur économique yi xam nañ ne affaire bi dafa am Hmm. maanaam presque amul solution. Hmm. tey ana ban njeexital la mën a def ci lii di euh, koomu Sénégal ci jamono joo xam ne xam nañ ne suñu bor bi mi ngi gën a yokk saa su ne ana ban njeexital tey la mesures yi peut-être mën a indi ci suñu économie. bor boobu nga tudd moo tax gouvernement bi ne mënuma lu ëpp juróom su ma ko ci naree damay lebiwaat te damaa këmmal. Hmm. donc limite bi ma la doon wax ci bor yi te tudduma ko woon ci la bokk. bor dox ci solo. Euh, ci lii di jeexital bi mais ndool ndool lu lu junni mënoon mënoon daaw jéeg mënu ko ren te nit ñi amuñ lépp loolu salaire yi jóguñu salaire yi toppuñ li wax inflation bi dañoo mos dañoo mosal. te ñan lañ mosal fonctionnaire benn privé yokkul salaire fonctionnaire yi cent cinquante mille lañ foofu bëriwul ñedul fonctionnaire amuñu salaire ceeb yokk diwlin yokk tamaate yokk poobar yokk tàngalmante yokk waa ñooñu moom xanaa moo yokk ndool ku daan débri àllub neen nga xam ne mënul assurer lu dul ab añ ndékki moom kenn ponkal mën na ngay débrouiller sa bopp ak reer hmm. tey reer boobu sax problème la ndax deux cent franc ponkal daana ci lekk cerek ak soow mais tey soo jëndee deux cent franc benn bébé moo koy naan ndax dugub dafa cher léegi deux cent franc cere da koy def ci sa loxo kon imaginal ki nga xam ne ouvrier da daan wàcc rek ndeysaan yor benn cent franc wala cent cinquante suñ ko defalee cere ak soow da ci daan reer ba suur hmm. Hmm. tey kooku su dindiwul trois cent jàpp téeméer même su jëndee cere ak soow du lekk kon loolu mooy yokk ndóol pauvreté salaire yi ñëw jóg njëg yi dem di naaw njëg suy naaw salaire du dox ñëppay sonn hmm. amul gen li ma lay wax ni amul gen amul pour bi nga cadre yi ngay dégg donte million la ñuy fayeeku kuñ ci jox facteur courant deux cent cinquante mille ngay bëgg a ndax ku nekk na nga toll ngay dundee mm-hmm. ñëpp a sonn tey peut-être ana tey nguur gi peut-être yan yan yan jéego yan stratégie lañ mën a lañ lañ mën a teg peut li ñuy wax court terme mm-hmm. ci suñu jàngat mm-hmm. mooy at gate lu gàtt muy at su guddee day romb at pexe amu fi réunion ne gouvernement ñëw na commerçant yi ñëw na kuñ ci war a boole boole nañ ci ñëpp ne ku ne ne lii laa man ñu dajale ñu juróom léegi dañuy réunion waat xanaa dañuy woote benn réunion soo wootee benn réunion commerçant dañuy bàyyi kon parce kenn du jaay perte te gouvernement li wax leer na mënuma damaa bëri bor am ay engagement sama sama budget baa nga di ma bëgg a rey trésor public dërëm na ko fa loolu pexe jeexul nañ jàpp ci lii mhm. bariwul de mais il faut ñu jàpp ci te nag cóob ndax lu ne jaar na fe nag mille neuf cent am indépendance ba tey ñu ne xujju di xoole defuñ ci réew mi lu dul ñetti hôpital ak ñaari université au nom de après def ay pont ak i tunnel après def la doo dégg bay doo dégg sàmm napp ba yàqu nañ te loolu booy xool daanaka moyen économique mais mais c'est ça le problème. Ah. donc te loolu kenn mënu ko defar ci moyen lu yées ñett ba juróomi at mënul nekk kenn mënu ko. kon solution léegi nii ren mënul mhm. ne déwén mënul ne li mën a nekk mooy tey ñu commencé ko nag tey te gisuma ko ci budget bi soo duggee ci budget bi gis élevage dara ne ko soo demee agriculture dara ne ko soo duggee ci armement nag fekk fa quatre cent milliards cinq cent milliards ay arme ki fetal ki bomb loola lañ waroon a jël def ko ci mbay mi mhm. ne commencé nañ Gowaana benn solution boobu moo fi am mooy Gowaana soo ko waxee nag ñu ne abla da ngay wax Ablaye wax maa ko wax 2008 crise bi fi amoon te boobu sax du crise économique financière la woon ak propre xaalis la woon États-Unis mhm. Wade ba mu demee Inde lijjanti ceeb ndax ceeb amutoon diplomatie moo ko indi dafa xëy bind Gowaana xam ne lii su amaatee déwén du baax dafa échoué nag ndax doxul mhm. defuñ ci alal ji ci war a def acteurs yi ko doon gérer gérer wuñ dara dañ fee nekkoon politique kese lañ fi nekkoon mais tey nguur nguur gi dafa waroon taxawaat ne Guana pour mhm. bi amul importance nañ xam li Guana ëmb mais tudd ko Guana Gaana nañ ko tudd lu leen neex mais ku newul guwaanaa doo defar réew loolu leer laa la wax. xeex ba ñu am ba moom suñu bopp ci wàllu. mais surtout mm-hmm. autosuffisance ñu ngi lu ne ñu ngi koy wax sécurité alimentaire ak ñaanaan autosuffisance ak ñeenaan souveraineté ak baat bu ñu fi man di indi guwaanaa lay tudd. Mm-hmm. lu dul guwaanaa guwaanaa la gën nañ bàyyi tali yu bari ak pont yi te dem guwaanaa moo fi solution te kenn mënut a guwaanaa. lu dul diggante ñett ba juróomi at hmm. sinon actuellement solution amul te déwén solution du am te ren ni mu tanee mooy année élection la loo tax nguur gi de xaru mais xam nga ne su élection amutoon wala mu jàll dara xewut duñ ñu sax lijjanti <laughs> c'est un échec de la gouvernance économique politique économique moomu ci réew bi mhm. neel béykat yi ana politique gouvernement lu ñu lay wax jëndoon na fi daaw ñetti tracteur de wante fi mu nii moom euh, engrais bi quinze mille treize mille la jógee engrais dem trente mille urée lu ñuy wax urée presque genre engrais la même chose semence moom waxaatuma ko béykat bu ci béy yaa ngi bëgg dee rentabilité zéro bëri amuñ leneen luñ def mais ku ku ci amoon bàyyi ko ba ko. juróom bi yokk si gerte gi ndax mën na am lu mu. dara du ko ci def mais nag foofu beneen dimension exceptionnelle la ndax gerte ñoom six cent la ñuy laaj li ñu fàtte mooy gerte ak cacao ak coton ñoo xaw a yem dañ ne nag côté bourse seen njëg États-Unis lay génne. soo soit fa demee kilo gerte rombul cent soixante eggu fa sax def naa est-ce que doon ay cent quarante français waaw ah, kilo gerte <laughs> kilo gerte kilo gerte def naa bi fi biñ koy yóbbu ci ay deux cent francs su ma jumul ay cent trente la la waroon a jar cacao bi loolu la jar Côte d'Ivoire ak Ghana actuellement ñi ngi rayante bay laaj li ñu tudde prime agriculteur ndax su ko marché bu fixé États-Unis ne la par exemple euh, kilo cacao ne la deux cent quatre vingt mais gouvernement mënoo ci dara lu lu teg ci fukki dërëm bokkut dugub vente libre bokkut ak euh, nu mu tudd bisaab vente libre produit bu ñu fixé bourse day am ay limites gouvernement su rombee li bourse bi wax cent quarante lu ca tege subvention la et ça léegi nag marché noir am na noir mm. mooy chinois bi ñëw sama maas nga xam ne speculateur lañ li jënd ren denc ko ba déwén jënd ko ren denc ko ba déwén ñooñu dañuy dem ci marché noir bi soo neexee jënd cinq cent nañ jënd quatre cent nañ jënd trois cent mais officiellement gouvernement bi li muy subventionné mooy fi bourse bi yem ak lim ci mën a teg sune ne cinq cent budget bépp dañ ko dugal ci njëgu gerte gi nga wax cinq cent gouvernement bi ko wax du ko mën mënu ko